tey danoo am mbégte parce que euh, lii tey day wane ni liggéey bu ñu doon liggéey boobu ba léegi nulul parce que boobu ñu doon doog a egg si yàggul dara euh, nit yi xamul woon marché bi boobu ñu doon doog a egg si nit yi marché bi intéressé wu leen woon mais léegi ak réunion tey bi gis ngeen ni dëgg yàlla nit yi jël neen marché bi léegi daf ko seen moomeelu bopp ah ni ngi lax kañ lay démarrer kañ lay commencer. actuellement nous avons am ci réservation sax moo ëpp fouf, lu ñu am ci disponibilité donc loolu day wane ni qui euh, nous ni ngi ci tànku jëm kanam waaye réservation aussi bëri na il faut nous mettre en place un comité de validation des réservations parce que tamit marché bi il faut nous nous jox ko valeur du ku rek par exemple ministre du commerce daf ma jox ndigal pour nous vraiment euh, privilégier production locale bi hein. par exemple nous xool nos béykat yi euh, au lieu nii di conserver lu jógee bitim rew nu conserver jaay yu fi nek bitim rew bi ay yu mel noonu donc comité de réservation bi dinañ ko tek te inshallah allah suñ ko tegee nak nu tan définitivement ñan moo wara nek ci marché bi nu ñew verser sen xaalis commencer bénéficier aussi si magasin yi nu continuer nak liggéey pour que vraiment marché bi jëm kanam euh, ci nek marché de référence comme ni ko président Macky Sall bëggé maintenant euh, marché bu melni nak nag dafa laaj quand même des euh, recommandations fortes fort yu ñu war appliquer Nous ci faire une sécurité parce que l'infrastructure de rëy est y installation de dernière génération donc fi devons donc veiller à ce que mu am sécurité bu doy par la gendarmerie euh, par les sapeurs pompiers mais également les gars qui accompagnent moom euh, accompagner recevant du public sécurité sanitaire parce que euh, pôle bi yaatu euh ci fi ak ay euh, ak ci kanam dinañu am population bu am solo donc d'ores et déjà nañu xalat lepp lu nga xamné couverture sanitaire la là également ñu assurer ko euh, sécurité environnementale les déchets la gestion de ces déchets là c'est etc. loolu itam véritablement dinañ ci euh insister ci entretien bi bâtiment bi bâtiment yu reuy mo fi nek euh équipement yu bax mo fi nek euh alal ju bëri lañ ko defaree donc ñu ko bayyi muy euh, muy euh, muy yàqu euh, pour défaut de d'entretien donc lolu aussi véritablement dinañ ci insister insister nak également ci démarrage bi alors ñu fixer maintenant les critères yi nga xam ni ku ko remplir war nga mën a aspirer à am benn magasin euh, nit ñi waxtaan ci bu ko defee ñu joxe magasin yi joxe chambre froide yi marché bi tàmbali avant koor gi loolu daal mooy objectif bi.